wa xayri xadimihi ila yawmi ddin bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nu ngi na mu gën a rafete te gën ne selle te gën ne matale diggante jullit ak moroomam jullitam ñuy yëkkati sunu kàddu nag ci kilifa jataay bi di sëriñ Ousmane Mbacké ñu di leen jot lii ay nuyoom ay cantam ak i soññeem mi ngi rafet lu jataay bii lool di jataayu lislaam kese nee na mi ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bu rafet bi ci yitte woo gi lu baax te di ko jëfe waxtu wu nekk te bis bii firndeel na ko ndax ba ngeen ko dalee taxawal ba nëgëni kanam rekk lay jëm waaye mut sa del ginnaaw te bis bii dara dara ëpp ko solo ci lislaam ndax mooy fàttaliku sunu bokk yi nekk ndooloon te ñu wuyu ji seen boroom te lii ñu leen di defal tey jii moom rek lañu gën a soxla fa ñu tëdd tey ginnaaw loolu bokk yi kàddu soññe yi nag day gàtt lool ndax waxtu xat wi ba tax na dañuy jukki lenn rekk ci li nga xam ne fas yéene woon nañ koo waxtaane ndax lépp xaju fi li ñuy jukki nag jàpp nañ ne dara ëpp ko solo muy waxtaane ak taalibe ndax kat bokk ñu baree bari dañuy juum ci lan mooy ak taalube te mooy li nga xam ne moo ñuy lëkkale ak sëriñ bi ba ñu mën a am sunu bëgg ci moom ba nu mën a am ngërëmal yàlla li tax ñu di ko waxtaane nag mooy ñenn ci bokki taalube yi ñu ci bari dañoo jàpp ne ku jébbulu rekk sa àjjana leer na lu la neex def naan Serigne tubaa mën na lépp ñenn ci bokk taalibe yi xamuñu luy sababus war a wutub sëriñ ba tax na aada lañ ko def jàpp ne mbir mi sukk raam su jot rekk la ak jaayum joŋe ñenn ci suñ bokki taalibe yi jàpp ne ku dut seenub sëriñ rek doo dara kilifa diine gu ne ñu mën a teg ci deram lu ñaaw te lii xew ci jamono ji wane na ko ñenn ci bokki taalibe yi di topp ab sëriñ ngir yittey àdduna kese maanaam sëriñ bi dafa am alal walla dafa siiw walla niti àdduna yi déggal nañ ko wala man na ci waa nguur gi dara ñenn ci bokki taalibe yi topp sëriñ bi waaye du ñu jëfe mukk lu dul ndigal li dëppook seen bakkan ndigal loo xam ne sëriñ bi digle na ko te neexu leen ñu wutal ko aw déggin ngir dëppale kook seenu bëgg ñu ci bari ci bokki taalibe yi yàlla yi teelu leen foo leen fekk adduna ak alali àdduna lañuy sàkku ba noppi naan ëllëg moom nañ ko bàyyee sëriñ bi lu néew ngay gis ab taalibe buy ñaanloo ab sëriñam ngërëmal yàlla wala ak njub wala mucc ci seytaane moo ne sëriñ bu mat sëriñ de lii rekk moo ko yitteel waaye ñi ki ëpp ci suñ bokki taalibe yi li ñuy wax mooy sëriñ bi ñaanal nu wërsëg bu yaatu bu nuy man ba nuy mën a joxe addiya bu baax a baax mel ne kuy jalug sëriñ bi yaakaar ne sëriñ bi addiya rek a ko yitteel ñenn ci bokki taalibe yi di diingat seenu sëriñ sëriñ bi waru woon a def lii waru woon a wax laa léeg-léeg ñu meroog moom léeg-léeg ñu juboo ñenn ci bokki taalibe yi doy dal sharia lool li yàlla digle ak lim tere ñu woyofal ko sàggane julli sàggane koor ak yu mel ne ñoom ci jàmm yi am na ci ñoo xam ne bu ñu jébbuloo ci sëriñ bi bu leen sëriñ bi di soññ ci jaamu yàlla ci lu mel ne ay julleeg yooyu dañ koy daldi woon ginnaaw dem jébbulu ci ci beneen sëriñ sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu wax na benn bés ne ku fi gis foo xam ne mën na fa amee aljana te du jaamu yàlla na dem ndax fii fi man amu fi ñenn ci bokki taalibe yi nekk saa su ne ci li leen seen diine tere jàpp ne dara du leen ca fekk sëriñ Tuuba radiyallahu taala an mas naa wax ay taalibe yu ko siyaari si woon ne leen baa du ngeen yàq sama der ñu ne ko mbàkke du yàq sa der mu ne mooy fu ngeen dem di ma wuyyoo te duñ leen seen mukk ca la neex yàlla ñenn ci bokki taalibe yi ku ñu bokkalub ab sëriñ jàppe comme noonu di jaxase sëriñ si di féewale taalibe yi bokki taalibe yi nanu xoolaat suñu bopp settantalaat suñu doxee settantalaat bu baax suñu diggante ak sëriñ te xam ne danoo doon ay jaami yàlla njëkk di ay jullit te dara indi wunu fi lu dul jaamu ko ñu jaamu suñu borom subhanahu moom yi kon suñu dara wërta juyoog sharia nu jox suñu bopp sëriñ Tuubaa war a doon ay taalibe yuy sàkku ngërëmal yàlla kon nu war di jëfe ndigalam di moytu ay tereem te sëriñ Tuba daraam génn alquran ak sunnas Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ku ciy def leneen nag sa mbiri bopp la waaye du lu sëriñ bi digle kenn mësta gis nag ku bëgg ku ko yóbbaale ba noppi muy ber yoonu boppam bokk yi sëriñ bi muy sëriñ Tuba wàcc na noo ci des ndax lim nu digal mu ngi ne fàng ci téere bii mu bind bàyyi fi lim nu tere mi ngi ne fàng ci téere bii mu bind bàyyi fi kon buñ ko duural di boole ci yoon wi lu ci bokkul buñ yàqut deram di ko wuyyoo te duñ jëfe mukk ndigalam moom sëriñ bi moo nu wax ne fa kullu ma qaddamahu al fa bil jazaa yajiihu dayyaanu lépp loo xam ne nit ki def na ko fii ci àdduna muy lu rafet wala lu ñaaw bu ëllëgee yowmal qiyaam dina dajeeg pay gu dëppoog jëfam jooja muy alquran wér fa man yaamal mitqaala darratin xayran yara wa man yaamal mitqaala darratin charran yara moo tax moom sëriñ bi mu wax nu ne wasaytukum yaa man taallaqu biya fi sirri waljahri li wajhi rabbiya an tatruku muharrama wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulla mustabih dénk naa leen yéen yi aju ci man topp ma te yàlla rekk tax ngeen bàyyi lépp lu xaraam wala lu ñu sib wala lu lënt bu fekkee nekkoon ngeen jëkk bu leen leen jege fenn bu fekkee mos cee nekk ci lenn yow mi nekk ci yii nag nan ngay mën a wuyoo sëriñ bi te sëriñ bi ci boppam tere la ko xalaatal ci say mbir bu baax a baax moom sëriñ bi mu wax nu ne walaazimu alwaajiba walmanduuba wa maa ubiha taxtawu taqriba dénk naa leen yéen ñi aju ci man te topp ma te yàlla rekk tax ngeen di def li war ci yéen te sax ci di def li nga xam ne sopp nañu ku ko def ci suñ diine ji di def li nga xam ne suñ diine daganal na ko nu dégge ci ne ñu ngi nuy moytuloo lépp loo xam ne daganul ci suñ biir diine ji segam danoo matadi nag bëgg àgg ci yàlla te xamuñu yoon wi bëgg ngërëmam te ump leen nun koy amee ba tax nu jël suñu bopp jébbal sëriñ bi yéenuwul maanaa kon ñuy nekk ci li ñu neex dara wër te nekk suñu yitte lu dul yàlla idil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmani xaytu qasada sëriñ bi nee na murid bi wër te bëgg dara lu dul ngërëmal yàlla kon ci wax jii rek kenn ku ne ci nun war naa mën a natt boppam ba xam war naa wuyoo muridullahi wala déet sëriñ bi neen kon yow mi nga xam ne bëgg ngaa nekk murid saadiq ba sañ koo wuyoo kaay ma wax la ni ngay melawoo sifaatu saadiqi lmuridi bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xawfa ixtiraar alsidqu fi mahabati lcheikhi abad tumma imtithaalu amrihi xaytu warad wa tarku al ictiraadi mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fi ma qarrawahu wa maahu salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari bi ci njëkk ci melokaan yooyu mooy nga bëgg sab sëriñ bëgg gu dëggu ba mu gënal la ku ne gënal la lu ne waaye nag bu mu tax nga doyadal sëriñu jàmbur saa bu la digalee nga def fa saasa doo am dara looy sikk ci li muy wax wala li muy def doon ci sam xel sax te doo am looy taamoo def wala nooy taamoo doxale lu dul lim la defloo ak fi mu la jaarale sëriñ bi nenu kon gannaaw loolu ta'addabu fi alanin wa sirri ma al ali wa xalqihi bil birri nanu takkaayoo ay teggin yu mat sëkk sunu digganteeg sunu borom ak sunu digganteeg sunuy moroomi jaam fu nu mën ne moo xam nu wéet moo xam nu ne ci mbooloo li annahu bihi ila arrahmani yasilu abdun wa ila aljinaani nee na li tax ay teggin munta ñàkk murit bi takkaayoo ko mooy ne ay teggin rek ci la mën a àgge ci yàlla ay teggin rek ci lay dugge aljana fa kullu man bi gayrihi raama alwusul li xadrati llahi fa xumrun la nabi mu ne kon képp koo xam ne yaa ngi sàkkoo àgg ci yàlla ci lu ay teggin boo jàppee ne ku yeewu nga yaa ngi nax sa bopp booleel sa bopp ci dof yi ab murit daa war di fàttaliku boroomam fu mu toll di ko bàyyi xel ci ay jëfam ak ay waxam di sàmmonteeg ay ndigalam ak ay tereem ci lu mën a nekk di xeeñtu ak bëggam fas yéene cee sax te a naw jenn jëf bal akthiri l amala lillahi l ahad miqdaara faqrika li awnihi abad sëriñ bi nee na ni nga xamee ne noo nii ngay aajo woon ndimbalal yàlla nanga ni bari lee say jëf yu baax mu ne dafa war moom murit bi di moytu tamit merum suñ borom subhaanahu wa taala kemt lay kàttanam moo tax sëriñ bi ne waamal li naari llahi qadra sabrika ala shtidaadi lxarri an tuslaka ni nga ñàkk a mën tàngooru sawara buñ la ca tàbbaloon na nga ni wattandikoo defub sofaan sëriñ bi nee na bokk na ci teggin yi murit bi war a takkaayoo digganteem ak moroomi jaamam wa kullu man sama alayka tukrimuhu wa kullu man saghura anka tarhamuhu wa ja'alu mitlika ka nafsika stawa wa gayru di mi mas iqaamatan xawaat képp ku ko féeteeg mag mu wekk ko teral ko képp ku ko féeteeg ndaw mu ñeewante ko yërëm ko képp kuy moroomam mu def ko ne boppam yéene ko li mu yéene boppam nee na murit bi daa war a fa war a woyfal boppam bu mu jàpp mukk ne moo gën kenn bu mu gis xàq ci kaw kenn bu mu xeeb kenn donte kooka ku xeebu la bu mu jàpp ne daa yeyoo ku ko màggal aka a wormaal di doxale ak nit ñi ni mu bëggee nu doxale kook moom li mu bañ ku ko ko def mu di ko wattandi koo defee mu yërëm mbooleem bindeef yi te di leen xool bëtu cofeel ak ñeewante te yàlla rek a tax di leen nëbbal seeni ayib ni nga bañee ñu xam sa yos di muñ seeni lor te di leen jéggal di leen dimbale ca la nga leen tanee te di leen laa diire nee na murit bi wërta barim pox ak ay caaxaan ak wax ju amul njariñ ndax yii yépp day rey xol di ko fàtteloo yàlla te àdduna gàtt na lool rawatina diggante bi nit ki juddoo ak fi muy faatoo ñi ëpp ci bokk yi bokk yi murid yi am po ak i caaxaan rekk lañuy ñuy nekk moo tax mu ne waru fi am temps bu muy yàqate ci am po ak i caaxaan nee na bokk na ci jikkoy murid bi di wax dëgg fu mu toll di moytu fen te du wor di wekk ay waajuram wormaal leen te déggal leen di rafetal digganteem ak ñi ko mag ci ay jegeñaaleem ak ñu dul ñoom mu sopp leen tey nooyal seeni wax ak ñoom digal nanu moom tamit sëriñ bi ñuy wormaal boroom xam-xam yi ak gaa yu baax yépp di leen liggéeyal te yàlla rekk tax di sàkku seenu ñaan ak seen barke moo tax mu ne wa zur xiyaar al ulama wa saalihin waxdimhumu lillahi jalla kulla xiin watlub duaahum wa minhum abada kun daa tabarrukin fa tasdaad alhuda fa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arshi fi qad nuqil mu ne ndax màggal ku xam yàlla te topp ko moom màggal yàlla ñoo yem sunu jamono jii nag boo dee siyaare ji beneen sëriñ bu du sa ñu la ni mu seytaanee buntu kër bu ne danga ko fa gis moo ne de sëriñ Tuubaa moo nu ko digal kon ñoom ñiy wax lii ñooy ay seytaane mënoo wax ne muridullahi nga ba noppi di noonoog jullit bi ngir ñàkk a bokk ak moom am ngir di noonoog jullit bi ngir ñàkk bokk ak moom tariqa di noonoog sa mbokkum taalibe ngir ñàkk bokk ak moom ab sëriñ fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa sëriñ bi moo wax ne bu leen noonoo mukk koo xam ne gis ngeen ko gémmiñam di génne baatub laa ilaha illa ak cheikh Abdul Wahab al Shaaraani nee na bokk na ci jikkoy murit bi mu sopp lool mbokkum taalibeem ndax mbokkam la ci meen fa yàlla ci loxoy sëriñ bi mu ne koo xam ne nag bañ na mbokkum taalibeem deeful yéegal sa jenn jëf ci asamaan bu fekkee nga daal daa góorgóorlu ci jaamu yàlla ba sori ci yàlla yàlla mën na cee wàcce say daraja ba mel ne mosoo def dara naax saayal sa jëf yëpp cheikh Abdul Wahab moo ko wax moom ci boppam wax na ne toog ci jataay di wax sikki sa mbokkum taalibe wala ak mànkiteem day waral yàlla jéppi la sa bokki taalibe jéppi la boo dee wax lu rafet nag ci ñoom day waral yàlla gërëm la nit ñi gërëm la ak yewute nag mooy ngay bañ a tabbi ci loolu yàlla di jéppee gannaaw loolu noo ngi leen di fàttali ne xàq yi dox diggante sëriñ akub taalibe lu diis la taalibe bi dafa jaf dafa jox boppam sëriñ bi ngir sàkku ngërëmal yàlla xàqi sëriñ bi ci taalibe bi kon mooy mu wek ko warmaal ko déggal ko bàyyee ko boppam mel népp néew ci loxoy ki koy sang ni ko sëriñ Tuubaa waxe xàqi taalibe bi ci sëriñ bi mooy mu xamal ko yàlla xamal ko ay ndigalam ak i tereem teg ko ci siraatal mustaqim di ko ci teete ba ak ruuxam set wecc ba melaat na mu meloon ca ësal ba mu wàccegut àdduna taalibe bi bu lànkee bañ a jaar fa ko sëriñ bi bëgg a jaarale sëriñ bi wàcc na sëriñ bi tamit bu matalewut xàq taalibe bi dina ko layoo moom ëllëg te kon taalibe bi yaay ko muy kon responsabilité bu rëy lool bu sëriñ su baree bari ci suñu jamono ji umpule ndax li war sëriñ bi ci taalibe bi diis na diis goo xam ne ku sañoon bu kenn ñëwee di la jox boppam danga naan ko li ma war sama digganteeg sama boroom rek doy na ma sëkk ci ñàkk xam ne ma koy lijjantee kon bay boo nga seeti kaneen waaye mel na ne la sëriñ tuuba doon wax ci melokaanu yenn sëriñ yi ci masaalikul naan ku ca dem da ko ci fekk tey jii la raw nee na bëgg àdduna di mbooloo ak alal bëgg ku leen wormaal ak di leen màggal wax na ne ñi ëpp ci sëriñ jamono sunu jamono ji dañuy wooteeg wilaaya di jéem a jommal nit ñi ci ay xissa yu bari te ràññewuñ farata ak sunna di ñor di nit ñi jëme leen ci fitna te loolu bu xool si suñu jamono jii dangeen ko gis ndax ñiy woote bari na lool te umpale lool li war seen diggante ak seen borom mu ne boo taggee beneen sëriñ ci wetam xolam naqari mu gis boppam ngir ki ñaan lépp ngir bëgg daraja mu ne boo waxoon lu ñaaw ci kaw sëriñ boo xam ne ñépp a xamul mbaaxam da cay bég ngir jàpp ne moom rek lañu war di tudd ak di tagg boo ko fi bàyyee jébbuli ci kaneen ngir sàkku fa ku la teg ci siraatal mustaqim Serigne Touba nee na day jàpp ne da nga koo xeeb di la tëkkoo ko ñaanal alkande Serigne Touba ne Serigne bii nag bu fekkoon mbiri taalibe bi jag rek ko yitteel kon fu mu mën a jage rek dina ko neex muy fi moom wala ci beneen sëriñ nee na Serigne boo gis mu mel nii nee ko fi ñukk te seeti beneen bu fekkee yàlla rek moo la yitteel nee na koo gis ci Serigne jamono ji muy kawe kawelu ci kaw jaam ñi jàpp ne moo leen gën wàcc ko bu ko jox sa bopp fa inna fadla allahi laysa muxtasar yu'tihi man yashaa'uhu min al bashar mu ne ndax ngëneelal sunu borom sunu borom subhaanahu wa taala yaatu na lool te ku ko neex mu sédd ko ci ba mu fees jàll kon bu kenn jàpp ne moom rek ko jagoo sunu borom ay mbiram lu nëbb la lu ko neex def te lu nee ngi ci jaamam sëriñ bi ne kon kayfa yasuudu wa huwa fi azmaani yuhibbu salba ni'matal ixwa ni'matil ixwaani sëriñ boobu nan lay doone sangu kenn te moom kenn ci xéewali suñ borom yi sëriñ Tuubaa nee na da ngay gis lenn ci sëriñ jamono ji ñuy nuru nuru lu gaa yu baax ya nga xam ne dara yitteelu leen lu dul ngërëmal yàlla foo leen fekk du dañuy tudd yàlla lu bari ca seenu làmmiñ waaye seen xol ya ñoo gën a taq ci xol yi dañuy wone ne dañoo dëddu àdduna ak alali àdduna te fekk yooyu rek leen yitteel sëriñ Tuubaa nee na da nga gis lenn ci sëriñ jamono ji ngir nuru nuru lu ku ragal yàlla te maandu tax duñu xool jigéen te bu dul woon bëti nit ñi ñu doxaleek moom nu yàlla gërëm nee na da gis lenn ci sëriñ jamono ji seen ñaaw dégg-dégg ak seen ñàkku xam-xam war na leen ba tax na ñuy woote àgg ca yàlla ba jaamutuñu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo wax ne waabud rabbaka xatta yaatiyaka alyaqin sëriñ Tuubaa nee na wala takun multafitan li kulli man raaytuhu yushbihu cheikhan fi zaman nee na képp koo gis muy nuru nur la ab sëriñ te du ko bu ko geestu ba di ko topp sax nee na bul def loo seen mu kutumbalu rek nga defe ne aw biskit la wala loo seen muy leer le nga jàpp ne aw weer la nee na bariwaana nga gis ci sëriñi jamono ji ku ñu yëkkati ak a màggal mu siiw lool mel ne ku yàlla dénk jamono te moo golo ñooyam fa yàlla nee na waaye bari waa na koy doyadal ay mbiram di ko xeeb fekk ku tedd la fa suñ borom tabaraka wa taala nee na bul xeet nit ki ngir ay yéreem yu xottiku te tilim ndax bari waa na ku mel nii te fees dell ki leer ak sekkare suñ borom subhanahu wa taala lii lépp nag bokk yi ba ko sëriñ Tuubaa di wax daa na ne taye taxoon kon bokki taalibe nanu delloo si xel yi jaamu yàlla bañ koo booleeg dara tëggu ci ndigali sëriñ Tuubaa yi di moytu ay tereem di jéem a jaar fi ñuy jaarale suñ kemt lay kàttan di bañ a topp suñ bakkan ci di wutu déggin ci waxi sëriñ bi déggiin woo xam ne seytaane rek kañ ci wommat jëme di bañ a doyloo yenn xissa yu bari yi te dara dëpp wu ci ak alquran ak sunnas Mustafa sallallahu alayhi wa sallam te lu dul yii sëriñ Tuubaa waxu ci dara sëriñ bi li mat digle wax nanu ko li mat tere won nanu ko kon képp ku ñuy woo ci lu wuuteeg ndigalal sëriñ bi nan ko woon gannaaw nanu wekk suñuy kilifa te warmal leen ki noonu mbooleem kilifa yi diine ji nanu soppante wóolante joxante cër warmalante bàyyi xiiroo bi ak ŋaayo bi bañ a xeebal kenn ab sëriñam gàtt xam-xam ak ñàkkum xel mën naa waral nga jàpp ne sa waay rek ay waaja xamoo lu sa borom dëxëñ ci sa moroomum jàmm te umpule may suñ borom yi yu yaatu yi ak ab sañ-sañam loolu dong lay firi nanu àndandoo doon benn kenn ku ne bëggal moroomam li mu bëggal boppam ñu yéeneente jàmm te xam ne sëriñ boo man di am lu mu foor foor boo yéene nit ñi jàmm doo am jàmm tey doo ko am ëllëg nanu xam ne ñoo bokkum noonu te dara yitteelu ko lu dul suñu xàjjali ko bu sañoon toppante du am kilifteef du am déglu ndigal ba di ko jëfee du am noon bi doon xeex ngir lislaam bañ a taxaw moo fi nekk ba tey te tey la ëpp doole tey la ay jumtukaayam gën a takk te ni muy xeexe sew lool ba day mel ne ku la yéene jàmm kon nanu boole suñ bopp te bañ a xajal seytaane suñu diggante bokk lu ñuy bëgg te di ko bëgg ba faaw bokk lu ñuy bañ te di ko bañ ba faaw yal na yàlla defal ndimbalam ak yërmande wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey